yàlla na yàlla tàpp xol yëpp yàlla na xol yëpp féex foofu la dëkk bi tollu mbokk yi ku jëf jël ku ñax jëriñu wallaay nag ku mer bokk ku mer bokk kon nag gaañi bu fi kenn mer ñu mer moom xam nañ tax ñu mer wante incha allah le 17 novembre bi yàggatul dinañ xam ne ne lu yàlla santaane mooy dem julli ji te bàyyi tooñ mbokk yi wax naa ko ci campagne bi nee naa juróom-ñaari weer ci ginnaaw askanu senegal dañu amoon yaakaar kenn naxu leen dañu amoon yaakaar yaakaar bu foor ñu def lu ñu def ñëpp teg ci seen bët ñun nag ñu ay jullit jullit mooy kuy julli et nous prions le même Dieu kuy julli rek jullit nga ñu nangu nag lu yàlla dogal wante nag dafa am ñu bokkoon ci 54 pour cent yi nekk lu yàlla dogal ñoom ànduñu si ba tey loolu mooy dëgg ma bëgg nag ngeen dëggam ak xel man ñu may jéem a xeex dañuy perte seen dama ne ñoom ñoo ma fekk si ci politique ils sont rentrés dans mon monde par effraction maa leen dàq politique fuuf dama seen moroma ah. nee naa leen nee naa leen dinaa leen dóor te suma loxo du leen laal moo tax ba may toog di campagne ñu ne ma bax waxal ci programme bax waxal ci programme ma ne leen campagne gi dinañ ko gagné incha allah wante am na lu ma nar a lijjanti d'abord te daanaka loolu amaana am nañ ci ndam ba pare moo tax ma ne ku jëf jël ku ñàkk jëriñu ku mer kookoo kon dafa am ñu mer ñooñu daal nañ leen ñaanal yàlla may leen xolu muñ ñun daal gaañi waaw mais même soo siisu na nga siisu ak yarak ak teggin mbokk yi dama ne la 17 yàggatul c'est dimanche incha allah askanu Dakar lay waxal suba incha mooy mercredi ginnaaw suba jeudi ak vendredi la caravane Sàmm Sa Kàddu dinañ wër ci mbedu Dakar comme le ministre de l'intérieur a dit nañ ko jox suñu itinéraire dakaar amul itinéraire Dakar c'est une zone géographique à lui de prendre ses responsabilités parce que dinañ caravane te may biralaat wax ci rek ragal dëkku fi ragal dëkku fi ah seen ay caaxaan seen ñu fu xale yi ñuy def di ñëw fii di yàq rond point di yàq ay nekk fi di yuuxu dama ne tout tànk yi xale yi ñuy fi yónni ñooñu ñoruñu ma dafa am benn waay moom nee na moom day commencé kava caravanam su ma buntu kër tey damaa toog di ko xaar ba tey gisuma ko gisuma ko mais nag malheureusement bu mu duggee ci politique ba tey ginnaaw turam ak santam lépp lu mu leen di wax dëppawul dëgg ay fen tey dama na doon caravane yeewu naa tey toog naa ba waxtu bi gisuma ko dama ne xale yi fii ñëw tout tànk yi maa ngi masawu nag askanu Baobab fii laa juddoo fii laa yaroo année prochaine su ci yàlla àndee incha allah j'aurai cinquante ans duma xale musuma gis Baobab askanu Baobab ndaw ñi gën di xeex musuma gis tey laa njëkk gis xale yi di gën di xeex maa ngi leen di jaajëfal maa ngi leen di bëggee wante mbokk yi dama ne xale yu fi ñëw tout tànk yi suñ fi ñëwaatee nañ leen may ndox ak glace pour féexal seen xol yi bu fi taxawoon ne day campagne fii départ fii 15 heures moom lay xaar ba tey du ko defaat voilà dama ne mbokk yi mbokk yi yàlla su bindee képp ku ci lim day nangu norul effacé yàlla su leen mayee ndam noroo leen ko gert yàlla bind na lu mu bind juróom-ñaari weer ci ginnaaw ñu ànd ñu ñëpp nangu yàlla noppi na démb tey soog a ñëw ndam am na ba pare te dimanche incha dinañ ànd fii biir mbeddu Dakar bi et nous allons victoire incha allah victoire mbokk yi cette victoire mbokk yi ça sera victoire de la vérité sur le mensonge. Ça sera la, la victoire de la paix sur la violence. Ça sera la victoire de l'intelligence sur l'idiotie. Ça sera la victoire des hommes d'avenir sur les hommes du passé et de détail. dama ne dafa am ay nit ruube nañu ba jot ci dara ce ne sont que comme des étoiles filantes day romb rek moo tax mën na leen mbokk yi na ngeen ànd dal nous allons gagner inchallah le dimanche parce que Dakar malheureusement il y a des va-nu-pieds qui ont décidé de faire de Dakar une terre brûlée les Dakaroises et les Dakarois ne connaissent pas la violence

président Bougane bii xalaat na ko ba ñuy dem yàlla nag ci mbaaxam set leen rek démb ba campagne bi dooree ba tey démb c'est la seule localité à Saint-Louis où je ne suis pas sorti sur mon toit ouvrant la seule localité foofu kese laa deful caravane taxaw ci kaw convoi bi ci kaw toit ouvrant bi parce que dama nekkoon ci oto bi di wax téléphone mu am fu ñu eggoon ma ne chauffeur bi nag taxaw moo wàcc dugg ci benn pharmacie am lu ma jënd mën a génnaat et tous les services de renseignement peuvent confirmer ce que j'ai dit. Ils ont arrêté 83 de personnes, il y a 8 gardes président Bourad Gaïdani. Ces gardes-corps n'ont pas mission de tabasser des gens. un convoi. des militants maintenant se retrouvent à se battre avec des personnes qui sont la provocation, c'est un autre vous êtes en train de chercher quelque chose que vous ne trouverez pas wante nag dama am lu ma metti wante dama koy assumer wante yéen tamit foog ma wax leen dëgg parce que am na fii kilifa bu dul wax dëgg moom fi taxawoon ne ba campagne bi dooree ba tey waxul ak monsieur le ministre de l'intérieur wante comme il peut pas se retenir de mentir hier encore il a confirmé à quel point il excelle dans le mensonge démb nee na moom woo na ministre de l' intérieur wax na ministre de l' que Barthélémy Diaz dafa yor ay grenade dafa jënd ay arme dafa yor lii dafa yor laa dafa parce que dinaa si delluwaat je veux ministre de l'intérieur mais surtout au président de la république monsieur le ministre de l'intérieur jotoo benn BR BR mooy bulletin de renseignement bu la mën a jox la preuve que Barthélémy Dias ay gànnaay amul amul benn service de renseignement ci dëkk bi bu fi mën a génn benn rapport buy wane ne que gànnaay wante nag comme waa ji mënul wax dëgg tank que fenul il n'est pas content yàlla dafa amoon lu yàlla dogaloon suma diggante ak moom yàlla boole woon ma moom Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Ce monsieur est venu chez moi ici un jour à la SICAP Baobab. Il est venu très tôt le matin. Il avait les larmes aux yeux et il avait la peur au ventre. mu dugg fii suma kër fii Baobab mu ñëw ne ma dañ ma bëgg rey ma ne ko kenn du la rey mu ne ma dañu bëgg a taal suma kër ma ne doomu ndey du ma toog di seetaan ñuy taal sa kër. yéen xam ngeen ma lu may wax nii lu may wax nii xam ngeen lu tax bëgguma waat kuy waat mooy comme su amee lu mu wante dama ne je le dis su ngeen tegoon fii la Bible ma wat lu may wax man du ma fenkat du ma doomu fenkat mu ñëw fii ci suba si un matin na dañu ma bëgg a rey ma na ko loolu munul nekk yàlla du ko setaan mu nee ma dañu bëgg a taal suma kër mu sàkk ci man ndimbal jamono yooyu nag dëgg la nag jamono yooyu amoon na nu ma doon toggee ma am lu ma def ci moom mu am ay bagages yu ma gis man parce que dëgg dañ koy wax rek ñun lépp lu ñu def ci politique dañ koy assumer lépp parce que yàlla rek dul cuum def nañ ay yëf peut-être su dem nekkoon tey amaan nañu defee ko neneen bu mu ma ko waxee ma am lu ma teg ci loxoom am lu ma ko won ba am lu ma ko jàngal moom te mu may dégg ku nga xam ne ni musul gis dara ci àddunam ci ay mbiru gànnaay voici monsieur le ministre de l'intérieur la vérité cette personne n'est rien d'autre qu'un bonimenteur qui a fait que vous racontez ce qu'il a vu chez moi et je l'ai kese leneen amu fi dama ko jox ay bagages jàppale ko boole ko ak ay nit ma jàppale ko te aar njabootam te bu may dégg ne il faut pas avoir une mémoire courte moom bañ koy jàpp moom ñu jàpp toute sa sécurité je vous invite vous de la presse à revoir les archives pendant neuf jours il a été escorté par tout mon tout mon personnel de sécurité ñëpp les archives sont là il connaît toutes ces personnes pendant neuf jours jëndul essence jëndul sandwich il a été escorté par mes gardes et mes véhicules avec mon carburant et ma logistique tu n'as jamais vu dans ta vie une arme à feu moi j'ai eu un permis d'arme maa la maa la woon fetel chargé arme maa la chargeur maa la woon lépp tey ngay taxaw di ma le su la neexee wante dinaa la wax ñaari baat du man ak yow du man ak yow parce que man dama doon wut dëkk bi juróom-ñaari weer ci ginnaaw askan bi ne ma du yow yow la askanu Sénégal tànn kon nag coow li coow yëpp du man ak yow te ala al man ak yow dinañ daje. dinañ daje ndax yàkkamtiwuma la coow li bi yëpp yow la ak askanu Sénégal juróom-ñaari weer ci ginnaaw dañ leen fenn fenn fenn ba ñu am yaakaar ci yow ndeysaan wante tey lu tax ñuy sant yàlla mag ndaw. góor ak jigéen ku la bëgg ak ku la bañ ñëpp nangul nañ la dara Sénégal kuy fen yaa yaay seen baay fen nga ba fenal sa fen nga lu nga xam ne du sa at te du sa génération moo tax na nga xool lu ngay lijjanti sa conflit ak askanu Sénégal parce que si tu penses une minute que 83 dina ñàkk seen bakkan muy nul ngay continuer di leen di woo ci gàtt sa gàtt sa rek sa da ngay fooyee sa xel tey nag dama doon toog di la xaar ba xool est-ce que wax dëgg yàlla est-ce que am nga san sañu def lu nga waxoon wante ca as confirmé encore que doo nitu kàddu wante nag lu may ñaawlu mooy ngay jël ay doomu jàmbur ngay jël de des enfants innocents ngay jël ay xale yu xamul sax àdduna nga leen di yabal fii moo tax maa ngi ñaan xale yi